seen yóbbalu bus bi tay ñuy fas yéene ñëw saay su ne nuñ koy defee di len ko fatali moy ngeen saxo di jang suratul fallax yi solo lol muy kul a'uuzu bi rabbin fallax min shari ma xalax wa min shari khasidin za wa habba wa min shari nafasati fil uqdi wa min shari khasidin za khasada kep ku koy saxo julli bo julli farata diko def suñu borom dina la musal dina la ar si musiba ak bala ak lepp lo xamne luy lore ba léegi rek képp koo xam ne bëgg nga suñu borom di yokk sa wërsëg di la defal jàmm ak xéwél gu yaatu ak mucc ak xéwél gu yaatu incha allahu rabbi ginnaaw ba nga jullee julli farata ba léegi rek ci seen yóbbalu suba na ngay jàng suratul faatiya muy umul kitaab ndeyu téere gi lu toll ci ñetti yoon boo paree nga teg ci suratul lixlaas muy kul huwallahu ahad allahu samad lam yelid walam yuulad walam yakul lahu kufuwan ahad nga jàng ci limu ñetti yoon boo paree nga tëjee ko salaatul fatiha muy allahuma salli ala sayidina muhammadi lil fatih lima uxliqa wal xaatimi lima sabaxa naasiril xakki bil xakki wal haadi ila siratika almustahim wa ala alihi xaqa xadrihi wa mixtaaril azim nga tëjee ko lu toll ci ñetti yoon muy salaatul fatiha képp ku koy saxoo di def yàlla dina la defal jàmm ak xéwal gu yaatu xéwal gu lay bett dina ñëw saay su ne si yow incha allahu rabbi kon loolu lañ leen indiloon tey si seen yóbbalu suba si bësub talaata bi mu tombeek la 13 août fii si seen seen youtube daaray Linguère ñu leen sant di leen gërëm di leen ñaanal ngeen yendoog jàmm jàmm ak jàmm ba suba ak jàmm incha allahu rabbi jërë ngeen jëf